a Salam s u alaikum, les patriotes nu o s nalen. Salam, salam, salam. Nu o s nalen, nu s nalen, les patriotes. Chase my guy, namoon nalen. namon na ku rek partage inshallah Salam salam. salam Salam, salam. salaam nuyu naa je man fier

dañuy communiquer donc euh, baat bi baat bi newatu fi mais nag dinañ jéem Babacar Seck nuyu naa la nuyu naa leen mes frères et sœurs patriotes nuyu naa leen yéen ñëpp comme je disais rek euh, baat bi moo dee mais nag euh, bëgg-bëgg bi ak jëmm bi waaw ah, awa allez voir nuyu naa leen génn bi mënutoon a ñàkk

Je ne bañuma def plateau sincèrement bañuma def plateau mais xam nga man dama de Dakar damay di salum té vraiment je ma dama sama parce que sept mois té nek ci biir donc il fallait que je daw Kaolack suis suñu waa kër sama yaay xam nga aduna bi yépp suis dañ j'étais en prison mais sama yaay rek moo xamuloon né dañ jité en prison donc euh, té dañ doon déggante au téléphone donc li yalla yàlla moy liñ li ñu doon déggante au téléphone xam nga donc comprendre woon ne maa prison donc bima ma il fallait que ma ñëw saafonte ak mom gis ko lool rek mo tax do tax ma bëgg baalu d'abord parce que nit peut-être nan ki kat génn na rek moy lolu ñukay wo plateau ñëwul mais c'était juste ça Hamga donc il fallait il faut que ma ñu maintenant voilà d'abord je remercier aussi tous les patriotes du Sénégal sans kenn ku nek nous munti Nous, rek nous euh, remercier les euh, patriotes de du diaspora sommes ñep des États-Unis Tunkara teg naa ko sa loxo nga nuyul ma remercier ma patriote yi nek États-Unis wa Canada wa France Belgique euh, Espagne plus particulièrement Suisse wa patriote suisse yi magu Suisse yi magu Pastef Suisse yéen ñep ñom Catherine teg naa ko sa loxo nga tegal ma ci loxo bép patriote bu nek Suisse ñi nek Italie partout dans le monde en Chine yeen ñep seen mbokk yegg nañ euh i représentants yegg nañ ci kaso ba saafonteeg man donc munu euh, man munu ma disons je remercie tout le monde parce que suma ma munu ma lim bu ma limee rek jim euh di remercier tous les journalistes

semaine prochaine mais Macky Sall moo tax ma guen parce que Macky daf né prison que torture prison pas seulement ci détenu politique mais ci même ci yenen détenu torture extraordinaire euh, je vais raconter <laughs> jour ma arrestation c'était le samedi 5, euh, août. Samedi 5 août. Bon, je me le matin, d'un chantier. Parce que je un chantier euh, Dakar, aux Almadies. Comme d'habitude, je me le matin, d'un chantier. bi j'avais rendez-vous à euh, plombier pour ñu pour nous force disons avec le plombier pour les salles de bain et tout ça euh, Il le plombier même il ma ci moto euh, je sais pas comment ça s'appelle encore ces motos ma ne voilà yo pas. may ne sais ma ma dem Je une de mes copines bah j'ai qu'une copine j'avais mu woo ma ne ma ñëwal nga lekk si jën sama kër lakk jën xam nga man boo may jàpp aussi ci lakk jën nga may jàppee léegi moom mu ngi woon Thiès mu ne ma nañ tasee sama kër ñu lekk lakk jën ma ne ko d'accord donc ma jógee foofu dem ziyaar naa leen Ramata Diop ma dem Kaj euh, Kaj Njaay <laughs> ñu ma namoon waaye mati ba pour la jéere baaba sàmba ma dem lekk ji lekk lakk jën bi bi ma yegsee moom sax yegseegul woon bonam bi dama ma yegseegul ma toog ci saal bi di ko xaar defar kafe di ko xaar nekk ci di boobu internet bi doxul ma connecté ci këram di surfer ci lu xew ci dëkk bi mu yegsi bi mu yegsee ñu teg ah, lakk jën bi ñuy lek bobu c'était vers euh, ay 17 h ay 17 heures yoyu ma parce que samedi ouvrier yi dañuy téla a 14 h rek ñu wàcc dem donc amna le temps dem sangu euh pour lek ñu tok di lek noonu jëkkëram jëkkëru sama copine bi génn dem di xamul mu doon jënd ci boutique bi ñëw ne waay yow mbedd mi. yëpp ñu ngi ko encercler ay gendarme mane ko ah mu ne waaw ma ne ko lu mu ne ma man de xaw ma mais mbedd mi mu ne ma aji mu ngi mu koy wax jabar ji mu ngi fees dell ak gendarme mu ne ma ay seen cam camionnette yi mu ne ma noonu ëpp nañ ay centaine ma ne ko ah ñu continuer di lekk tranquillement dégg ku ne rëng rëng rëng bunt bi bon bi jóg ubbi mu ne ko c'est la gendarmerie mu dugg si man biñ ne tëll dugg si rek ma ne man lañ jël si noonu mu ne ma mu ne ana aji ndaw ma ne ko maa ngi nii parce que bon bi dafa nekkoon ndeysaan tiit mu ne ma ne ko maa ngi nii ñu dugg ci ci saal bi mu ne ma yow lañ doon seet ma ne ko maa ngi nii de mu ne ma y a un mandat d'arrêt pour vous ma ne ko ah bon mu ne ma waaw mu ne ma ma ne ko lu ma def mu ne ma soo ñëwee at ñun après di nga ko xam ma ne ko pas de souci ma ne ko waa kay lekk boobu mu ne ma non lekkal ba pare ma continuer lekk jën bi ba pare raxasu euh, kii euh, comment dire, je naan ndox tranquillement ma dem bay jóg mu ne ma non nañ wax tuuti je vais pas entrer trop de détails parce que je suis en liberté provisoire comme ils disent au Sénégal ay <laughs> eh, eh, waay Ali Baba ko Maintenant, ma téléphone man parce que mon téléphone y avait rien donc mu jël mon téléphone Khol. après mu ma Je da nga xam diw ma ko ko ma ko ah, mais je xam peut-être photo après bi may laaj je donc c'était pas sur le carte de ma ne ko non peut-être bu ma gisee mu génnee ay photo ma ne ko ñii de xamuma leen mu ne ah mu ne ma ñii xam nañ la ma ne ko man ñoom xam nañ ma ma ne ko ça peut être possible parce que man damay maa ngi ci maa ngi ci politique bi maa ngi ci live yi donc am na ñoo xam ne xëñ na ñoo may xam mais man du ma leen xam mu ne ma ah mu ne ma léegi soo ma waxee foo mun ne fuñ mun a gisee ñii ñu bàyyi la nga dem ma ne ko man de kon doo ma bàyyi ma dem ndax man ñii ñooy laaj man xamuma leen noonu mu ne ma yow xam nga tu es en fait mu laaj ma samay document mu vu que tu as la nationalité européenne xam nga mun nañ la fi bàyyi dem suñu yoon mais à condition que nga wax ñi ñii ma ne ko man nag du ma la wax ma xamul xaw ma xam nga mu ma léegi donc il faut ñu dem ma ne ko ah bon mu ne waaw mu ñu ci kër bi te bu doon sama kër la sax ok mais kër jàmbur nga dugg ñu duggu dugg te armoire yeeg bagage yeeg jaxase kër gi mën a tekk di leen xool ñu pare euh, ne ma léegi il faut ñu dem ma ne ko waaw ma jóg ñu mënate ma oh ma doon bandi salté ci ka ci instant bi ñu mënate samay loxo waa ji génne benn chaine pour mënate sama tànk yi ma ne ko ah bon à ce point ma ne ko escalier la ñuy wàcc de xaw ma nag nan laay wàcceeg escalier ak mëne tànk yi mu ne ma on va t'aider après ma gis muy discuter kenn ki daal pour mu bañ a def loolu noonu pour faire bref ñu wàcc génn kër gi bi ñu gëñ te loolu li ma la ñuy wax nii c'était pas c'est dama ko gàttal quoi mais def nañ ci biir kër gi ne serait-ce benn une heure de temps ou plus kër jàmbur bi yëpp ñu def ko nu leen neex ñu wàcc bi ñu wàccee ma génn ci buntu kër gi at les menottes et tout mais li ma gis ci doomu aadama gendarme man li ma compté man aji ndaw rek te cinquante deux personnes ci benn cinq à dix minutes bi ñu taxaw foofu bokkut ak ñi ne ca Anglia ma xam ne li ma jëkk sama jëkkëru copine bi doon wax ne c'est des centaines dëgg la man li ma compté rek man cinquante deux personnes compté naa leen parce que ñoo taxawoon noonu bi ma yëkkatee sama bopp ñi ma séen ci angle yi mais c'était extraordinaire ma tourné ma ne ko saa mu ne ah ma ne ko lii yëpp pour man mii boobu je pesais cinquante huit kilos ma ne ko may grand yéen lii yàq la munoo ma woon dama ñëw ne ma ciib jël ba yóbbu ma lii lii lii lii yàq la mu ne ma noo garaawul ma ne ko pour man mu ne waaw ñu dugg ci oto bi dem wala ñu dem directement gendarmerie ñu dem ci benn man xam nga ndakaar xamuma ko mais euh, disons ñu dem ci benn lieu ma laaj ki ma ne ko fii fan la mu ne ma yoof yoof waaw si je rappelle daf na ma yoof léegi ma ko lu ñuy def fii du gendarmerie la ñu war a dem mu ne dañ fi war a récupérer benn oto ma gis ñu jël benn oto bu bu kii bu nu mu turati bu weex buñ tamponné tamponné ci côté kii dawal daal ñu tamponné ko après ñu jël benn euh, kii oto bi nga oto yi nga xam ne ñooy man xam nga yooyu nag ma koy wax yi nga xam ne ñooy récupérer oto yu accidenté yi ñu jël ko teg ko ci kaw loolu yëpp maa ngi toog ci oto bi ñoom wàcc nañ nekk foofu Euh, gendarme yi ñëw di jàppale euh, ñu kooku war a yéegal oto bi ñii di wàqi affaire yooyu pour ñu teg ko ci kaw ñu dem bu ñu defee loolu ba pare foofu aussi on a passé plus d'une ma ne peut-être dañuy bañ di dem di ñëw moo tax ñu aw fii sama xel de xel mu gàtt moo tax ñu aw fii nii euh, récu pour récupérer def benn voyage quoi ñu dem yegg gendarmerie après mu ne ma bu nga woo kenn ma ne ko waaw ma ne ko boo su dee eh, dafa am dama fi nar a yàgg waaye mu ne ma waaw mieux vaut nga woo kenn ma ne ko je peux appeler mon avocat mu ne ma waaw ma ne ko ok ma oo sama benn xarit ne ko appelle-moi un avocat euh, léegi ma oo aussi sama grande sœur Bintu Ndaw kooku guddi giñ ma jàppee ba jour bi may génn moom laa doon wax sànq kooku lu ma ko remercier ak Pape Camara lu ma leen remercier ci kaw suuf en fait doyul Bintu et sa famille bi Bijou sa fille ñooñu bëf ñooñu je vais faire un live spécial parce que il faut que àdduna bi xam ne doomu baay du wujj doomu baay mag la te bàyyi koy jur man aji ndaw lu tax may aw ci parce que pour man man ñoo bok nday ak bay mais dama dund dara ci kasso bi ay ñoo xamne dañoo bok benn deret bok benn bay di rayante ba dugg ci kasso man lool mënu mako won comprendre mënu mako won comprendre parce que dama ne man bima ma bima xamuté fi ma né lima jikko xalaat du sama yaay du sama mag bu mu bokal nday ak bay du sama papa ma ci alakhirah du kenn mais sama grande sœur ñu bok benn bay mom la xalaat baal leen ma appel la woon moom laa xalaat moo ñëw ñu ndeysaan mu daw jënd lu ma lekk affaire yooyu man ne ko non man lekk naa léegi ay jën biñ may jàpp dañ ma fekk ma lekk jën yu neex heureusement waa ji ma ne ko waaw léegi man je peux savoir luñ ma jàppee waa ji commencé di lire chef d'inculpation di lire ma ne ko waaw mu ne ah ma ne ko lii yëpp maa ko def

lañ ma dóoral ma ne ko waaw mu ne ah ma ne ko yow grand yow li nga wax rëy na de mu ne ah moo tax sama jëkkër biñ ko ooyee wax ko inculpation liñ ma inculpé noonu lim njëkk a wax mu ne donc deful dara parce que man dama am fobi euh, mooy dama ragal arme dama euh, du seetaan film bu am ay ay guerre wala ay ay rayante wala walla wala kii wala lu am deret sama jëkkër nee na moom ñu ko wooyee tudd loolu rek mu ne donc sama jabar deful dara parce que man ak moom bi ñuy génn xam nga en Suisse tout Suisse euh, bu ñu jotee jot def seen service militaire dañuy dem def seen service militaire def seen deux ans mais dañuy indiwaale seen arme ci kër gi xoolal li yàlla di def dañuy indiwaale seen arme ci kër gi man bi may génn ak moom xamoon naa loolu ma ne ko mbaa yow yoro mu ne ma ankay ma ne ko du ma dugg sa kër tant que arme mu ngi fa donc moom à la fin bi ñu sëyee noonu bi ñuy génn noonu dafa jël arme bi am na fa seen dépôt foo xam ne parce que ñoom bu ñuy rendre seen arme c'est à cinquante ans ngay rendre sa arme en Suisse boo duggee service militaire je le répète à cinquante ans ngay rendre sa arme deux ans di nga pare mais arme bi da nga koy téye à l'âge de cinquante ans jour bi ngay def cinquante ans jour boobu ngay rendre sa arme moom propre mari xam ne man dama am dama ragal arme mu jël arme bi am na foo ñu fi ñu tuddee garderie foofu la ko dem garder ci région bi nga xam ne yow da nga ko fay dem euh, en tant que Suisse nga dem euh, ñu garder la ko ba ngay am 50 ans nga dem récupérer ko jox ko arme euh, armée bi waaw léegi koo xam ne jabaram daf ne ko man duma ma sëy si sa kër du ma dugg sa kër ndax arme mu ngi ci biir man kooku nga ñëw ne ko moo indi oto bi nga ko jàppee dafa fees dell ki arme may tiirante ci kaw ma ne hee Ali Baba ko ma naar man de mujjee naa dab benn salte yëf yi waa ji di wax may ree mujj gi waa ji ci boppam il était gêné ndeysaan moo tax gis nga ah ma ne ko mon frère ma ne ko ah ma ne ko garaawul quoi ma ne ko li garaawul amul problème ma ne ko bindal rek yow liñ la bind a bindal après xam nga daal am na daal lu ñu doon def benn gest rek ma ne nii mu ne ma da nga ragal mbóot fekk mbóot di romb da nga ragal mbóot <laughs> ma ne ko waaw ma yéegal sama tànk yi noonu ndeysaan beneen garde beneen gendarme di fexe rey mbóot bi <laughs> keneen ki ne ko waaw ku ragal mbóot moom war a yore arme yi yëpp léegi man fi ma toog avant avant kooku di ma wax chef d'inculpation maa ngi gis gendarme yi jeunes yi ñi nga xam ne ñu ngi door a dugg ñu ngi ndeysaan oh boobu nag sama yaram ndaw na après la sama yaram daw ma gis ñu ngi yurndu ci vitre bi di ma xool ñoom ñëpp di ñëw di seetaan di yurndu di ma xool am koo xam ne day saan daf ma xool ba bët yi presque mu tuuti mu des fa ñoom ñëpp di ma seetaan mais man boobu xaw ma lu tax ñu may seetaan ma neen ah man lan laa war a def ba ñii ñëpp di ñëw di yurndu di dem di yurndu di dem pour xam kan la daal xam naa ak sama ràggaay ni ma ràggee woon noonu xam naa mu impressionné leen léegi bi ñu ma commencé di lire chef d'inculpation ma ne ko grand mu ne ah ma ne ko monsieur mu ne ah ma ne ko lii c'est honteux mu ne lu tax ma ne ko parce que xam nga ñii nii petit gendarme yi ñii ñu seen début te ñii ëllëg ñoo lay remplacer yow ñooy jël sa place ñii ëllëg ñooy war a surveiller say doom ak samay doom samay doomu morom tey ñu la ñuy jàngal lii nga xam ne rien n'est vrai là ñoom ñu war ko répété waat ëllëg man ko vous avez après day këpp suñu kaw nit ki vous koy nga wax buñ ko def défilé bu mais je te dis des centaines de personnes di défilé di ñëw di xor xalé yi ndaw ah répéter la même chose que vous êtes en train de faire ci sa ay doom wala sa ay doomu wala sa ay wala ci ay sénégalais comme

ma ne ko j'ai fait les bancs yu tam signé mu ne ah ma ko signé lii yëpp mu ne ah ma ne ko may fekk xanaa arme ya mooy jën yi ma doon lekk mu ne ah mane ne ko man bañ naa ko ba sama kër du togg sax ma ne ko Suisse ga dëkk mu ne ah ma ne ko man je cuisine pas j'ai un une boo xam ne depuis sama doom yi nekk xale mooy ñëw mooy raxas c'est une euh, c'est une femme italienne mooy ñëw raxas immigré comme man foofu Maria mooy raxas mooy toggu mooy defar lépp bàyyi bu ma ñëwee ma séddale des fois sama jëkkër séddale ñu lekk ma ne ko waaw ku dul togg di jël paaka sax di dagg euh, ñu ne ko yaa yori ay paaka ki ay pistolet xaw ma ay carabine man daal affaire yooyu euh, disons tout yi baal leen ma turu pistolet xam nga carab am na daal façon turu pistolet daal yu ñu bind yu ñu kii wax ne yooyu yëpp ci oto bi ne dama doon dàqante di tiirante ma ne cay ba pare journaliste yi reprendre ko journaliste tamit du ma leen condamné parce que peut-être gëm nañ li ñooñu tudd ñu ñooñu bind maanaam ah aji <laughs> eh, ndaw mbaadu man damaa am séex boo xam ne moom man ko dul seetaan film mu am deret sax film bu ñuy reyante man film na doon film amoureux boo xam ne de après fin bi da ngay jooy li sama sama jëkkër di wax euh, lan xaw ma lan lacrimé lan la ma doon tooñee nga xam de bu may see ma ne waaw léegi le samedi dimanche ma tëdd gendarmerie lundi matin ñu yóbbu ma kaaf ba gars yi non Sénégal ñoo dàq jouer film ñoo dàq jouer film man bi ma toogee kaaf ba ñiy def revue de presse aji ndaw chef d'équipe <laughs> ngi damay ree ba garde yi nekkoon foofu di ree ma ne cey am benn kii waaye mu ne ma waaye yow lii ñëw ku fi ñëw yooyu lañ lay bindal dara euh, il font que des conneries ma ne ko non mais nag lii c'est pas juste parce que man xam naa ne du dëgg ku ma xamit xam na ne du dëgg te li ëppoon aussi importance ki may sëyal moom xam na sama nature comprendre nga donc euh, mais am ku ma xamul mais ndeke koo xam ne mu ngi kii pour Sénégal jëm kanam mu muy def muy def lii mais yàlla moom dëgg rek la bëgg te lu mu métti métti ma ñëw damay live kooku maa ngi ñëw ah Pape ma ñëw dégg nga donc liñ daan yàlla bëgg yàlla rek bëgg rek la dëgg rek la bëgg

nous, eh, nous devant le procureur mais je peux vous dire que on a parlé de tout de tout sauf les chefs d'inculpation de tout on a parlé de tout moi et le procureur Abdou Karim Diop parlé de tout. Nous avons parlé de tout. Nous avons parlé de tout. Nous avons parlé man avons parlé wala aji ndaw ba ñu jàpp euh, fële euh, at aji ndaw bii ñëw toog fii comprendre tuma daal après bon on a parlé parlé parlé euh, waaw naka moom patriote yi dañuy dugg ak génn rek dugg ak génn maa ngi ñëw xam naa laaj bi parce que patriote yaa ngi commencé ñëw ndax dañuy ne dañoo ne ci liggéey bi li ma tardé woon sept mois la war a récupérer mooy dugg ci dëkk bi ñun loolu lañ xam ñun loolooy suñu arme eh eh eh loo loo euh, suñu arme mooy lan mooy dem ci patriote yi dem euh, jox ma kees boobu noonu waaw ah, fii nag nee ma ko baar leen ma def une minute rek oh

15 arme bi espèces e-mail bi yey arme bi man arme yi laa xam ba on a fait 15 000 espèces e-mail mu ngi sunu arme moo comme que j'ai raté 7 mois je me suis reposé 7 mois c'est ça C'est la seede yalla <laughs> tay live bi neex ne bi moy newuma suma kër suma kër papa laa ne baal leen euh, voilà comme je disais li moy sunu arme c'est ça les pistolets que j'ai et ma pièce d'identité inchallah allah bu ci yàlla ma voté man monsieur le comment dirais-je euh, gendarme juge procureur et tout mon unique arme dans ma vie c'est ma pièce d'identité sénégalaise c'est ça Je may suis nga may euh may dor ci nga suis may voté ci nga may voté suma nekké ci biti je prends l'avion munti nek. Watch sur le terrain battre campagne dem voter c'est mon unique arme ma pièce d'identité sénégalaise ka faute bañ ko ba ou ko voilà bañ café ko ba kafeewuma ko bu may dem ñibi dama koy def ma caisse de sécurité à la banque parce que doom du goût la damay bañ sax yóbbaale ko xoolal du ma ko booleeg sax mais carte de crédit duma ko booleeg sama passeport du ko booleeg dara te boo ma laajee léegi nii fi ma toog sama passeport sama passeport mu ngi fii ñaar yëpp ñu ngi fii bu sénégalaise bi dinaa ko wut incha allah am ñetti passeport eh Ali Baba ku ma naar mais pièce d'identité bi moom am naa ko eh, man loolay sama arm ñu jël ma yóbbu ma place ma su euh, non dama def naa. 10 jours retour de parquet parce que vous sama gars yi ñi ngi après quoi Moi, je ne pas vous raconter mais je vais ko raconter après parce que je retiens toujours day non non lañ fa wax ak liñ ma ba presse bi ko wax ak lañ fa bind wax ci fait live Je ne <laughs> vous dormir au MAF Liberté 6 après 10 jours de garde à vue aller-retour xam nga mais man yalla moo ma man damay adapté wu peut-être ñom loolu lañ xamul woon parce que nag xam nga bu yalla défé nga télé immigré à bas âge mineur Yalla dalay may ben force d'adaptation man damay man fo mu yóbbu rek ma adapté wu ci retour de parquet bi limay dégg nit ñi naan dafa metti man dama dem ba adapté wu ci retour de parquet bi dama je rigolé tranquille diko dund tranquillement parce que psychologiquement j'étais pas préparé mais dama adapté wu ci lolu ñu jël ma yobuma maf suñu wa kër yépp pour ñom leur problème moy mode de vie bi ma tam wara dem bir maf motax mané Macky Sall da nga xamul prison rek bima yexé tin ñu yobuma chambre 3 chambre ça faisait une cinquantaine de femmes on dormait par terre par terre ok benn toilette la Nous euh, ñu partagé toilette bi da ngay boo jógee suba da ngay vous sër bi nga mais pas parce que da nga mais parce que c'était pas parce que je vivais en Europe mais c'était tout le monde, même les femmes qui vivent ici. Nous, nous, Donc, nous nous nous, ñu nous sommes dépôt Madame, tranquillement fekk fa nous, bi ma ma là. Amidia mère Amidia Je ko ma la grande patriote Pascaline Diata. ci parce que mom chambre 3 la nek ñu bolé ma ak mom ma ñew mu accueillir ma xam nga bolé ma ak chef de chambre bi oh mo don gas terre man jël man la <laughs> non gouvernement Macky Sall mo neex ma don nak jël jël wo man xawla ñit euh bolé ma ak chef de chambre bi mu wax ma fumay teud ma dem sangu xam nga affaire bi ki man talibé bay la talibé bay deureum ak 1 million la yemelé foo ko dugal mu adapté wu ma tourné gauche à droite gis une cinquantaine de femmes man ma fàtte sama jëmm ji ne ñii nan lañu war a dundee fii benn toilette tëdd par mais yeneen détails yi duma ci dugg parce que kii kiiwul daal euh, mooy loolu moo tax Macky Sall sa doom bu jigéen boobu yàlla na ko ko ëmb ci barke Baye Niass ndax man nee naa la sama noon sax yéenewuma ko prison euh, ñu nekk foofu ak ñoom Falla Fleur ma xëy ñu présenté ma ñoom Falla Falla Fleur fa laa ne xamee sama gars yi ñoo na fi sat euh, yaay sëñ Saaliw Yacine Diagne Anta Lay Fall Khadija euh, Diallo waaw Aïssata saane ñoom ñëpp ma fekk leen fa na kii Mati ñaa ndeysaan eh, Sénébou nous. ñëpp ma fekk leen fa des patriotes nous toog avec euh, une grande dignité pense que gisal nit ki mun nga ko tëj mun nga ko toroxal mais foi bi bu ko amee pas le cœur est trop loin le projet bi c'est tellement profond que c'est comme de l'amour xam nga doo xam fan c'est ça le projet du Pastif ou lex pastif comme vous l'appelez J'adore ce, ce projet. Man, je me dis que, ils m'ont juste donné le temps. Ce qui me manquait. Le temps. Mignon, psychologiquement, je me suis dit, Adi, j'ai cette chance. Parce que Foudi Diapé Ousmane Sonko, ñi ñi nekk ci kaw suuf yépp di ay patriote yàlla tànn la ne yow di nga ko wéttali ci côté man aji j'en suis trop fier sincèrement bu yalla rek moy tax may wax tok na sant sama borom ne ko bu ma nekkoon tey Suisse j'allais le vivre mal mais comme que ñu may tëj di ma tijji di tëj Ousmane diko ko man je suis tranquille ma vivre ko lool man lool moma ma won en fait lool moma ma won xam nga maa ngi dund même chose que piqûre nañ ko man naan naa fa garab man loolu moo doon sama sama kii daal te te en plus presque ñun patriotes yëpp loolu la woon xam nga on avait ça cette entente on avait cette force boo xam ne pour man ça d'arrive de ce projet comme lii Fleur doon wax ne bu dee lii moo war a tax projet bi antu yàlla nañ fi yàgg ma ne ko amiin ñi ci biti lañ doon xalaat ñun pas ñun ñu nekkoon ci biir parce que mi nekkin ba métti na mais lu metti nit rek la ko yàlla di teg du ko teg leneen nit mala moom rek la ko yàlla ndax ñooñu la yàlla bind donc pourquoi pas moi man que qu'est-ce que j'ai plus que d'autres femmes ñun fa nekkoon li sant yàlla rek bu ma leeree ne ma lañ ma waxal yëpp defuma ko danga koy vivre tranquillement parce que tout c'était là psychologique kaso lépp tout, tout, c'est dans la tête Si nous fermons ce cœur là dans la tête tu es libre tu voyages tu es tranquille xam nga nga souterrain, yàlla que la nga fekk fa ay doomu aadama tu a bokk ngëm-ngëm léegi nag ki daan xeex injustice ci biti nga dugal ko foo xam ne Macky Sall y a de l'injustice loolu moo waroon une grève de la faim Qu'est-ce que c'est? parce que longue détention parce que les détenus politiques parce que les dëkk dëkkuwaay bi lek yu neub yi xalé yi ñëpp ci kasso bi Macky Sall ñepp ku tok hémorroïde la am parce que toi bu yàgg bi bu bi xam nga euh, tëdduwaay bi nit yi dangay tëdd ba ci buntu salle de bain buntu douche nit yaa ngi fa tëdd booy booy jóg guddi di dox da ngay dëgg ci nit ñi pour dugg ci salle de bain bi des fois da ngay téye say saw pour bañ a sonal nit yi pour bañ a gaañ ñi pour bañ leen derange donc nga dund loolu ba pare garde yi sainte tenue nous koy jaay détenu ça veut dire moi je suis garde toi tu es rien parce que tu es fautif mais qui êtes-vous pour me dire que je suis fautif vous êtes le juge vous êtes le procureur pour voir que man je suis fautif Vous dañ ne la gardeel rek yema ci garde ñu ñëw le premier trois quatre jours je suis ko Fleur Je suis ah règlement intérieur Je suis bi règlement ne ma bi ñu ba ñu koy mane ne ko ah mu waaw ma ne ko nañ dem bureau directrice man si je vis quelque part je veux savoir lan la ma yoon may ak lu ma yoon mayul sinon mun naa toog suba ba ngoon jot di def dégâts ci biir parce que xaw ma liñ ma tere ak lu ma terewul ci biir détention bi ak fu ma war a yem ama fu ma war ta yem ñu ne duñu jox règlement intérieur ñu nekk ci ay jours ñu ne non ma gis ma dem gis directrice bi ma ne ko léegi ñun li ñuy toog nii du matin au soir di wax rek di mbel-mbeli ma ne ko comme que correction la pourquoi pas faire quelque chose boo xam ne c'est utile ba nga xam ne xale yi même ñiy ñëw une semaine deux semaines génnaat ñiy ñëw un mois génnaat ñiy ñëw trois mois génnaat bu ñu génnee wala ñi fiy yàgg ñu def loo xam ne ñoom bu ñu génnee du ñu dellu parce que ñi ci bëri dañ doon génn dañ lañuy ñuy ramasse parce que dañuy jaay seen bopp ñoo xam ne dañuy sàcc ñëw xam nga ma ne ko léegi ñii bu ñu amee lu ñu def ci biti dootoo leen gis fii vous vous aurez moins de monde fii moins de jigéen ñuy ñëw di di di di di nekk ci détention bi ñàkk lu ñu def moo tax parce que kenn du dem di sàcc te am alal ca kër ga c'est parce que yow amoo ba yàlla pousse la ci xay googu dem di jaay sa bopp li nga xam ne moo ëpp valeur ci jigéen mooy jëmmam bo démé ba diko jaay c'est parce que sës nga mané ko légui mu ne ah ko je suis prête euh, la directrice bi mané ko dama bëgg man je vais nga nga may ma nga may ñu bok ñu investir fi lo xamné xalé yi dañ ci jang mané ko on va cultiver liñ fiy lek lépp ci détention bi ñun ñokay koy suñu bok parce que du ñu jël espace bi nga xam ne fi la nit yi di dox ma ne ko mur bi man je sais le faire je l'ai en Suisse ma ne ko ñu jàngal xale yi jigéen yi nu ñuy béyee ok ñu jàngal xale yi la pisciculture ma ko man je vais déployer tous les moyens vous allez pas sortir un centime ni vous ni la le gouvernement mais ñu ma jàngal ko xale yi xale yi mën ko nga xam ne bu def ko seen kër di am ay revenu dootoo dem jaay sa bop do dem satchi xam nga munema ne euh, munul parce que yéen wa Pastef ngeen munema <laughs> ne euh déjà détenu ko def man ko ok mais man man mun ko def indirectement ñi ne ci biti lay wax ñu ñew def donc munema non fofu la ma non non Pastef non ah munewa problème ma ne ko léegi ñu ne ko léegi ñu ñu dem te loolu yëpp man dama ko waxoon ak ñoom nami dañ ko waxoon ak ñoom d'abord léegi après ñu ne waaw comme que noonu la demee baal leen ma de cay euh, comme que noonu la demee ñu toog concerté wu ne léegi nañ def grève de la fin parce que lu l'unique arme qu'on na nañ leen def grève de la faim pour revendiquer nos droits parce que leneen mënuñu ko détention bi chambre yi amul aération Ni yi bëri na surpopulation ci chambre ci ci détention bi lekk yi da ngay xale yi dañuy tek man alhamdoulillah sama lekk ci biti la doon jógee ñun ñep détenu politique yep suñu lekk ci biti la doon jógee ño doon bok tok lekk comprendre ngeen donc euh, amuñoon problème bobu mais nekkul na yow amoon problème boobu rek ñeneen ñi nag la ñuy seetaan ngay gis ñii seen biir yi di daw ñii di feebar affaire yooyu. rang infirmerie nit yi dañuy rang mun nga fa toog plus d'une de temps te problème bi presque ñoom ñëpp ko bokk ñu ne ko lii lekk bii nga ñuy def di ko jox nit yi c'est pas juste tëddin bi c'est pas juste manque d'aération bi c'est pas juste cour bi nga xam ne boo ne nii.

ça amène le cancer ma ne ko c'est pas mieux ñu changer toit yi ma ne ko ñu jéem a def aération fii ma ne ko léegi ñëwal at man mu ne ma non explique rek ma expliquer ko ma ne ko léegi si fois waaw boobu dama ko wax ba pare mu dem ma toog une semaine waxuma dara ma ne ko fleur mu ne ah ma ne ko maa ngi dem gisaat adjoint fekk boobu jour bi ma naan ko maa ngi gisaat adjoint euh, kii bi directrice bi di romb ma ne ko niib directrice mu ne ah ma ne ko kaay mu ne ma non du ma ñëw ma ne ko kaay directrice dafa am lu ma lay woon mu ne ma déedéet ma ne ko ci salle de bain yi mu ne ma xam naa li nga may wax mais li yàlla di def am benn détenu mu am problème papam gaañu muy jooy ci biir mu dugg di ko calmer rek ma xëcc ko dugal ko ci douche bi ma ne ko fi ngay bañ a dugg ñun fi la ñuy dugg chaque jour ma ko gis nga lii ci kaw mu ne ah ma ne ko baaxul day am indi cancer biñu démé nak di exposer problème ko ko yeen su ngeen mu ah ko des fenêtres dindil toit bi toit de bain gratuitement parce que j'ai l'équipe aux Almadies bu may tabaxal dama Vous je vous paye yi travaille depuis 15 ans pour moi c'est gratuit ñu wax dal suñu ki bu ngeen sax yu bëri bo fleur wax na ko ci Pape Alé bi ñu toogee di kii mu nañu euh, oote yëpp ci cour bi nit yi jigéen yëpp ñu génn mu ñuy jéem a xam nga rek ñàkkal fayda waaw vous êtes ingrat rek affaire yooyu di ñu xas daal ni lu tax ñun ñuy ñuy kii ñuy numutati di di di di grève affaire yooyu vous êtes ingrat naan lekk bi baaxul li ko neex daal ñun li baax yi ñu ko wax yëpp mu teggi ko li ko neex rek li nga xam ne moom la ñu bëgg xasee rek mu xasee ñu ko ñu ne ko ñun lekk bi ñun lekkuñ ko ma ne ko muy man di fleur di ami di matisa di ñoom ñëpp daal na fi ñun ñëpp suñu lekk ci biti lay jógee ndékki añ reer ñun bu ñu neexoon fii la ñuy toog jàpp suñu njàmbur mais injustice moo ñu tax a dugg fii donc nan la ñuy toogee suñu ay moromu jigéen ñuy subir injustice ñu la ñuy dóor ci détention bi ah ay garde yo xamné dañuy yoré sen rëng rëng rëng ban ban trois man sama papa musuma dóor sama yaay musuma dóor man musuma dóor sama dom ma ñëw gis ñuy dóor nit ma ko lutax tax ma koy nangu je le fais pas donc mu nek wote ñep ci cour bi né wax wax bam neex ko ma kii fleur yëkëti loxo fa Falla fleur yëkëti loxo mu ne ko non vous n'avez pas vous avez pas droit à la parole mané ko ah man ma yëkëti loxo pour rek être sûr vous aussi ah, si on ne parle pas ici on va parler d'or mu rek suba dégg suba yi mu nous commençons mu créer le fait que ñuy commencer di créer fleur di ma créer di créer ñëpp xam nga ñu boutique n'importe quoi boutique fu ngeen avant man leen boutique man moy jëndal jaamu yi fi jëndal des centaines de mille man personnellement pour détenir hein. donc kuy perte du bi bu grève de la faim nga ko nga la on avait déjà acheté nos bouteilles

mais man samay droit dama koy laaj ba dernière heure waaw kooku je suis d'accord mais pas ñi ñu ko doon def ay jigéen lañ comme ñun ñoom ak sa doom boobu doomu juge euh, Mamadou xaw ma Seck boo xam ne man bi li ma dëgg sept mois man musuma gis Mamadou Seck <laughs> ay Sénégal man sept mois musuma teg ba te ma doon sama juge Mamadou Seck sept mois di tudd dëkk naatu fa musuma gis Mamadou Seck

Euh, nous, on nous a donné le temps Je nga que quelque chose qui est précieux yo amoo ci biti gauche à droite tu as le temps de penser à toi-même de voir vraiment ce qui ma le ndax parce que ça t'arrive tu es humain ndax lii jar le temps qui est précieux c'est la le procureur jox. moom la ma le euh, le gouvernement de Macky Sall jox li ma amuloon boo ñëwee Sénégal da ngay daw ba mu fii génnaat boo nekkee Suisse da ngay multiplier daw bi bu ma daan laay boo ngeen seetloo dix minutes lay def quinze minutes ma ne leen dama war a dem bureau bu dem leen ngeen dégluwaat sama laay j'avais pas le temps mais ce temps précieux ñoom offrir nañ ma ko gratuitement ma tëdd dund ko am le temps de penser à ce projet tous les lives de Sonko dama ko doon revivre le projet je l'ai relu relu relu pour le mieux comprendre moo je suis ne jërëjëf man dinaa leen jaaxal nag je man damay sant Macky Sall ak gouvernement yam damay sant Abdou Karim Diop parce que dafa amoon yu bëri yu ma échappé au ci projet mais j'ai eu le temps de le lire c'est à maa dem foofu une euh, grève de la faim mais après man dañ ma parce que je marchais plus j'avais des problèmes parce que man déjà j'ai des problèmes naturellement depuis mon suis même problème ils sont à le dos c'est ça que je souffre donc tu ci la grève de la faim mu téye sa doxatuma toute nuit, je les remercie parce que nous, nous avons sang ñoo ma doon tëral ñoo ma doon yëkkati ñoo ma ba niñ may euh, pavillon spécial toujours prison ma dem fa foofu tamit Macky maa ngi lay wax ye une dame bu fa je vais faire un live spécial fàttewuma la de ma sœur fàttewuma la ma la xalaatee rek y a la prison moo tax démb bi Macky di wax loolu sama xel ci jëmm jooju la dem je ne sais pas si Je je retiens et je disais tout à l'heure que bof je suis obligé mais le moment où a wax rek nous le temps de penser ci ma Lire le projet Je ne dit que da multiplier multiplier d'effort ci ci la ma détention je ci la comprendre pourquoi je me bats parce que je neexul ba pas des fois euh, pas sama jëkkër moom ma bën bëgg-bëgg na pas des neex neex ne <laughs> xam euh, tu vois rarement rek la ma doon wax bon bàyyi xam nga mais mes enfants parce que ñom xamuñ réalité Sénégal donc dañ doon opposé wu mais bima duggé kasso ci lañ doora xamné deug deug man dama wara a surtout mon fils mu ma maman je suis fier de toi bats-toi pour ta nation jour bobu dama ko jooy une semaine mané ko buma ma yegné li motax pour nga comprendre kon fexé naa ñu jàpp ma Yagna, parce que je tiens trop à mon fils maman bats-toi pour ton ta nation mu ne ne injustice amna na après tu le du commencer dugg ci net bi commencer lire affaire au Sénégal et tout informé ou bi ko oyaté ci la wax wax jooju mu ne je savais pas maman dama laa dan gis ngay live man dégguma olof duma comprendre li ngay wax

amuma woon à part ñi may suivre ci Facebook grâce à l'UE ñoom ñoo tax ñooy fekk fu dara newul ñu def fa dara moo tax ma merci quand je suis sorti de la prison ni yi ma gis ma non parce que boo nekkee ci biir doo xam li ci biti bi ma ñëwee Kaolack waaw ma foogoon ku génn kaso da ngay sëgg nit ñi ñëw di daw si ne mes félicitations ku génn kaso nga naan ko mes félicitations patriotes yi rek ko ñemee ku génn kaso nga ñëw di ko ziar ne dama la ñëw ziar si di la laal mel ni kuy laal wàlliw moo tax lu ma mën a wax loolu jërëjëf Macky Sall euh, njabootam ñoom Abdou Karim Diop nit ñi ñëw naan la ñëwal. xoolal bi ma bi ñu ba léegi j'avais pas le temps de de faire live parce que chaque jour nit yaa ngi ñëw chaque jour xolal limay live légui nit yaa tok ci biti xolal nit ñi ngay dem ci biir kër yi té luma gëna ci alhamdulilahi rabbil alamin lool waruma won faté yalla yàlla jërëjëf ba pare nag dalay euh day tax nga gëna a sa borom da ngay sell biir kasso di ñaan yalla dila won né day day am jërëjëf jërëjëf Abdou Karim ndax bu won woon yow dama xam ñu mettre ma en garde à vue loolu dama ko faté won ma xam fa ben xalé bu jigen ndeysaan ñu nek di waxtaan xalé bu jigen boobu biñ ma déféré mardi vendredi mu suko tardé mom ak toute sa famille te foofu ci bir ci bir euh, rëbës je remercie aussi les policiers de rëbës ballen ci bir rëbës la xam xamanté xalé bu jigen mom moom ak sa famille

kooku euh, moo doon bras droit Mariama Sarr kooku moo ma tëwoon Kaolack man dama naan génn di pare ne ji moom ñu koy fekk ci biir kii néegam di ko di ko jox pièce d'identité yàllaa ko ko may mayu yàlla la kooku parce que man sax ma sama politique nag dafa mos a set kooku bu daan organiser meeting am dama naan ko man grand frère man lii mooy sama wàll ci meeting bi jox leen

xoolal lire rek jaroon na ma dugg kasso kooku xoolal dama ko daan may livre sonko yi envoyé vidéo sonko yi te da koy déglu de lire xoolal mais c'est pas son problème dem naa ba ci yàgg ma ne ko grand frère yoon boobu ma ne ko kaay ma may la terrain nga ñëw mu ne ma ah da nga ñuy corrompre ma ne ko yow moom dama lay corrompre parce que dama bëgg nga ñëw ci lu baax barki cheikhal l'islam bi ma yaakaar addina ak àllaaxira mon grand frère m'a dit non je préfère Macky Sall que ton terrain koku démb mo ñew at ay jigen at ay goor ne ma depuis bi nga nekk kasa ñu ngi préparé wu waxuma ben nit de waxuma ben nit de koku mo ñew avec une presque cinquantaine de personnes defar sen lepp xolal ñep ak pièce vote de vote ne ma légui mu ne ah mu ne ma des na ñeneen seulement que démb jeudi la nit ñu bari dañuy liggéey mais dañoo bëgg dimanche bi ñu ñëw fii sargal la wan la ne ñun ñu ngi ci yow waaw damay lay laaj ma ne bi ma duggee kasoog léegi ñoo xam ne mosuñoo politique ñoo xam ne ñii dañ doon politique ñii Macky sàll lañ woon léegi rek lu mu tuuti tuuti mun naa ko bañ a exagérer cent personnes yu ma sëkk yu rombul première famille boobu ma la ñuy wax nga xam ne man ak seen doom ñoo bokkoon garde à vue te mosuñoo tëb mardi mosuñoo tëb vendredi ñoom ñëpp seen yaay seen papa kër gi muy onze personnes booleeg ñii booleeg ñii ñëw chaque jour xoola yéen gis ngeen li ma daan takk ci bracelet ku ñëw bu ma la tuubalee ba pare symbole bi mooy benn bracelet maa réew maa réew man jelmaan bi maa réew xoolal bu ma la tuubalee jox la benn bracelet waaw loolu jarul woon tëdd kaso moo tax ma ne la dañ ma moo tax ma ne la dangay yàq foog ne nit ki yaa ngi koy yàq ndeke yaa ngi koy defar fi ma nekk bu ma gàddoo samay kayit fu ma dem ne aji ndaw la toog wax ak yow su ma ñëwee xam nga dama doon day présenté wu léegi jaratul présenté Macky Macky gouvernement ak ñoom Abdou Karim ak ñoom ñoom juge bi ñoom présenté nañ ma le monde présenté nañ samay mbokk Saalum Saalum léegi bu ma ñëwee damay ñëw rek ne leen maa ngi nii kii laay présenté Diomaye fay sol sama t-shirt xool leen defar la sama t-shirt amatuma yére bii rekk sama yére parce que dama gën a xamaat projet bi dama gën a xamaat li may dox lan la dama gën a xam ne dëgg dëgg ndeke man maa ngi ci dëgg ndeke ñii film biñ ma joué loo la dëgg ay karab bi nag ay xawma naan ay pa <laughs> eh, ne dañ ma doon ndàq mais tiire naan kër kër ma ne ay waay man mu jëlee naa doon bandi di ah loolu yëpp ay yàlla ci kanam ñu bari doon may wax ne ma lutax do do lutax lu tax ñibbi woo lu tax kii ñu lay japp man j'ai trois nationalités suma duggé bir biir Sénégal nationalité sénégalaise bi moy valable yenen yi valable tout donc ñom mu am nañ droit japp ma suma ma renoncé woon comme ils voulaient eux me renoncer à ma nationalité dem ñibbi kon duma ma kasso mais nak tëdd kasso bi jar na ndax renoncé wu ma sama nationalité les mes chers patriotes

ndax bëgg naa le projet Pastef bëgg naa Seydina Ousmane Sonko bëgg naa Diomaye fay bëgg naa les patriotes ma ne leen kon nañ dem tëddi lu metti jaam bi rek lay door kese looloo waral sama tëdd kaso ndax bu ma renoncé woon du ma tëdd kese moo tax nag dolli sant yàlla lu bëri waroon nañ ko mën a wax mais comme que je suis en liberté provisoire lu bëri dama koy teg da ko teg quoi mais dina ñëw dina ñëw bu leen dara naqari xam nga man wax rek laay def ku ma jàpp yaasoon sa bopp ma sama gémmiñ bi boo ko bëggee tëj may taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim Niass te wax bu leen wax moo tax bu ñu daan wax ma ne leen man la ma géntoon naxu ma xanaa kañ maa décorté goowul woon gént gi mais yàlla du la du la teg natt mu ko te tàgguwu la yàlla waroon na ma sama tëdd kaso yàlla wanoon na ma sama génn moo tax Maolana may sant nag Baye Niass ndax dañ ma jàpp rek defeere ma trois jours rek jëmmi jëmmi yi taxaw ca bunt ba dama ajiwul tiit dara te ma lu ma neex mooy Baye toujours benn wax bi ne ajiwul tiit dara ndeysaan gaynde gi taxaw oh non jërëjëf c'est vrai xam naa du ngeen mën a comprendre lu tax ma naan jërëjëf ma Macky Sall le juge le procureur du ngeen comprendre parce que lu bëri la lo xamné c'est pas le moment de raconter ay détails yu bëri mënooguma ci dugg mais pour vous dire rek dañoo jouer film pour jàpp ma mais dañ ma bayyi at xam nga lu je m'attendais même pas à ça dañ ma bayyi at conviction encore plus ne fu Seydina Ousmane Sonko piqûro ma nan fa garab fum nané garab ma piqûru fa tu tu ma confiance tu renouvelles ma confiance sur le projet Pastif ma détermination mon espoir l'avenir de ce projet je le renouvelle encore devant vous vous mes témoins nous on a fait 15 000 espèces email ok batterie est donc euh, on a fait 15 000 espèce yi mel nañ dem joxe.